gën ci ci tënk rek nekkoon nekkoon nga ci say bagage mu jaar sa dund. waaw waaye tamit teewut am na leneen lu ci laxasu loo xam ne mystiquement. bëri na bëri na bëri na. Mm, li ci laxasu yooyu bokk na ci euh, nga jóge Prince Art parce que wax nga ko Prince Art du yow kese yaa fa nekkoon. Mm. y avait beaucoup d' mm. euh, ñi gis ni parfois ñu génnoon album ñi toog di xaar. Euh, wax nga loolu bokk na ci li tax yooyu tam ñu gëj laa gis. yaa ngi Prince Art bi la war a bàyyi nga. non fi mu toll nii moom. fi mu toll nii lan moo tax nga ba. voilà xam nga man man fi millier showbiz bi Sénégal. Mhm. bu dul woon kilifa gi nekk ci man ak taalibe gi ma nangu. Mhm. taalibe gi ma nangoo doon nga xam ne benn soxna fekk na ma fekk na ma Paris. Mhm. ñuy toog di waxtaan ba ci yàgg mu ne Pape Ndiaye yow sa aar li ko xaw a xaw a tuuti mooy maanaam taalibe gi ngay dund yow da ngay dund dëgg dëgg dëgg taalibe. Ah, comprendre yar boobu noonu ak teggin googu mooy ma doon dund ak Prince Art man naa wax ne man musique amul ku ma war a topp fii ci ginnaawam Sénégal ndax ñi ko diriger laa wax tey ñu tey ñu jiitu ci kanam tey fi mu toll ñu nañu le meilleur meilleur arrangeur fii ci Sénégal mhm. man bi may musique mhm. ñoom ku ci nekk ñi mi woolaal instrument Mhm. barke Serigne Saliou. te it li ma lay wax nii man damaa jomb ay ay waxantu. non mais yow say heure ah, dama def parce que mën na ko prouver. parce que bi ma ñëwee fekk naa ñëpp. waaw ñëpp fekk naa ñu def te ba man xanaa ma ne fi ma génnee moo gën a garaaw. Mhm. man jamono yi may génn. Mhm. ku yàlla mayul li ngay def nga maîtriser ko doo génn. Ah, parce que dama ñëw dama fi fekk ay ndaanaan. yaa ngi dégg. média bi tasul nii nga xam ne ku ci nekk mën nga am benn copain bu lay sànni la ay TikTok ak yu bagaas. Mm-hmm. boobu pour nga génn télé sax problème la. Mm-hmm. pour nga teg am am am am am maquette maquette laa lay waxuma la cassette waaye problème la. Mm-hmm. boo defee lu baaxul moom na la leer kenn dootu la déglu. te bi ma ñëwee ñëpp waxuma taasukat ci kaw laa ne ci kaw. ci kaw laa ne te loolu umpul kenn kuy sénégalais fii loolu lan moo ko def te du pro du. animateur ñoo ngi teg jàpp mais dama la bëgg a wax ne cassette boobu xam la lan moo nekkoon fort bi. Mhm. li nekkoon foor bi. lan la. parfum ku mu romb nga nga yëg ne parfum romb na la. absolument kenn du la ko forcer. Ah, naan la ndax non boobu xaw man taw ma sax ak Prince Art. boobu fan nga ko defee. album boobu maa ngi ko defee maag Ousin Ndoye. ok biir 2STV. li war a album boobu xam nga la ne man damaa yàgg nangu doon taalibi. Mm-hmm. nangoo tarbiyewu. Mm-hmm. mën naa mën lu bari sax waaye sama yar ak sama teggin ak maanaam bu ma nit jiitee ma am lu ma ko may ci cër. studio jamono mm-hmm. sama benn frère moo ma sa gis ñuy ànd nii di waxtaan ndax da yenn saa doon jugee kaw la ñu seet si ma Lamine Sène day bonde yenn saa bu may waxee mu ne Pape Ndiaye yow da war a génne kaset ma ne ko waaw dinaa génne kaset. mu ma koy wax di ma ko wax ba jàng ma ne ko non dañ koy defandoo yàlla def loolu bi mu na ba ma ne ko dañuy defandoo kaset bi. Lamine seen ñëw. na ma nan la ñuy defee kaset ma ne ko def def kaset dafa dafay xaw a jafe. mais li ñuy def nañu dañuy mbaxal. ni ñu mbaxalee mbaxal bi mooy. dañu wut tuuti som dugal studio. enregistré tuuti. bu demee ba xaw ndànk dox leen ndànk tuuti. Mm-hmm. ah dañuy def émission. <laughs> waaw waaw ci biir de waaw. <laughs> yàlla def. Mm-hmm. ba bagages yi ñëwee noonu. Mm-hmm. ñu foraat suñu suñu suñu tur boobu ñu ngi tëgg ci suñ maa ngi tëgg DRC. sama mag mu ngi tëgg ay tur ak affaire. bu Fallou Dieng waaw bu Fallou naa la indil foto Mbaye. Mbaye. <laughs> indi ma benn photo foofu ci sama néegu am na cim maay wàcc ban sama émission nii la maay wàcc dem indi photo bi ngir ñu xel leen boisson lu tax ngeen ni naan ma dem indi sama kii ah, voilà léegi ah, ah. yàlla def mm-hmm. Lamine Sène bi ñëwee ñu def ñu ñu def mburaake ñu def suñ mbaxal mm-hmm. mu am tuut lu mu yor ma am tuut lu ma yor mm-hmm. léegi fekk boobu maire nday sekk signature bii nii gaa ñu bërki démb dama ko tëggaloon benn cassette maak Moustapha Faye boobu Tafa Faye moo fi xewoon moo tëgg ay kam ndiig ay ndongolo yéeg Papa Ndiaye géwél yéeg yooyu yëpp boobu Tafa Faye moo gagné moo nekkoon moo fi indi woon marimba ci musique mu gars yi topp Tafa Faye mooy joué ñëpp Tafa Faye am deal ak mère day sekk signature ne ma damaa bëgg ma ñëw tëggal ko cassette yaa bi yàlla def bi mu tëggee cassette bi ba pare Tafa Faye deseloon ma ci sama cachet sama xaalis léegi bi bi ma toogee dugal naa sabari ba pare parce que sabari ñun ñoo koy dugal biñ dugalee sabari ba pare ñu am problème mu woo ay instrumentiste te boobu maa ngi delsee te ñi fay joué ñëpp samay xarit lañ man ak ñoom ñoo ànd bokkandoo orchestre ma jël ku mel ni boobu maa Anta Fay ma fa nekk ma ñëw na ko joué batterie ah Assane Seck mu joué mu joué guitare ah vie aaj ma ne ko ñëwul joué clavier euh, ay harmonie biñ demee pour marimba ma ne Tafa Fay nag yoroloon na ma kase te boobu Tafa Faye dafa seer. Uh-huh. ma ne ko nag Tafa Faye décroché ko dina métti waaye na bab xaalis. ma woo Tafa alors mu ne boo yaa bëgg xaalis ma ne ko lan ma yoroloon. Uh-huh. laa bëgg léegi fi mu toll nii nga ñëw joué ma ko. Uh-huh. ba ma joué mu ñu féetoo lool. Tafa bi muy ñëw sax moom wax na ma ko dama koy wax souvent mu ne booy bi may woo seen album bi. dama ne naa naa naa ko joué pour génn ci yow. ndax sax sama sab xaalis. ma génn ci xaalis bi ma la yoree. Tafa ñëw nii moom moom na génn ci man rek. Mm. bi mu ko joué joué morceau yi. Mm-hmm. affaire yi affaire yi neex ko Ousseynou studio 2000 toog moom it ñu liggéey liggéey liggéey man damay xam naa xam naa Ousseynou day borom dégg la. Mm. ñu toogee noonu di liggéey ci studio bi rek ñu ñu kii muy yëngal bopp bi di kii ba ci yàgg mu ne ma nii waa mais boy yéen am ngeen producteur. ma ne ko non ñun amaguñ producteur. ba ci yàgg xam man man ma amoon ma ne nañ mbaxal bokkal ci mbaxal ma <laughs> ñu mbaxal ñun fi mu toll nii dama koy mbaxal mu ne ma non garaaw léegi dinaa xool Marème Ndiaye. bu ko defee ñu xool naka waaw waaw euh, madame El Hadj waaw mm-hmm. yàlla def cassette boobu ma ànd ak ñoom ñu defandoo ko. Mm-hmm. mu def meilleure meilleure vente. au Sénégal. waaw ah, d'accord léegi dañu ñu ngi ñu ngi dem ci processus boobu parce que xam naa itam bu ñuy toppee say daara yow de macha allah. waaw ndax waaye xajuma ci émission waay waay fanaan si leen waay ñu def di nu mu tudd direct. ñu <laughs> mbaaxal ñu fanaan yéen fanaan may doy ci yéen. mais mais fi may bëgg ñu ñëw fi directement. mooy génn presse art bi. waaw parce que explication bi gën naa dafay. ndeysaan damay ragal mu gudd. waaw waaw day gudd waaw ndeysaan. ci waay li ma bëgg a wax ba. gars yi dañ ma yàgg tëj li ma waroon wax waroon lii waroon a wax. dañuy ñëwaat. Hmm. yow dañuy wax lii doon dugal mu def ba ñu ñëwaat ñu ñëwaat léegi presse aar nga nekk fa ak moroom mm. euh, euh, génn bi laa bëgg nga tënkal ma ko rek génn lu tax nga génn exactement waaw dama ne mm-hmm. man fu ma yàgg ci ci man man daanaka maison mm-hmm. ku ma àndal daf maa neex ci wàll musique bokk parce que mën nga demal sa bopp waaw waaw bu dee arrangeur mm-hmm. man li ma fi ta li fi li fi tëgg yëpp maa ko arrangé mais dama ne la dama la arrange arrangé man fii Sénégal. Mhm. ah. Mhm. booy jël ci meilleur arrangeur yi doo fi bàyyi Pape Ndiaye Coppete maa ko wax à haute voix di ko wax. ñi nga xam ne mooy les grands arrangeurs. mais est-ce que même mhm. dem ba xam ne yow. vous maanaam yow maanaam apporter leen dara. moo tax tamit ñu ñu ñu def la ci kii li ngay wax ci trois yi. non non non non xam nga presse dafa am nu muy doxe man sikku ma leen. ci benn côté. ñoom xaj na ñoo xam artistes yi nga xam ne ñoom la ñuy placé. ak duñ leen placé. mais dama ne la artiste. boo ko dencee lu mat trois mois déjà benn affaire rek man xam naa ne xajuma kuy laa. xajuma téeméeri artiste ci benn kër man dafa nekk artiste boo xam ne ki may ki ma war di gérer kooku man kese dama koy doy. non arrangé wu parce que xam lu tax parce que retard la may wutal parce que. ñëpp a nga fa parce que loolu ñoom déjà duñ am sax euh, jotu maanaam ku ci nekk ñu def li war ci yow xam nga ab artiste boo koy boo koy gérer nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ah da koy gere moom kese. boo bëggee carrière am dem mais boo yore téeméer téeméer artiste bëgg leen gérer nii bëgg leen gérer dina am ñoo xam ne dina doo leen nàmpal te nàmpal googu nga leen di ñam nàmpal moo leen di loofloo. du manque naanaam ña manque manque inspiration du manque a mën a def buzz mais tëj boobu nga leen di tëj noon diir bi bi nga leen di tëj noonu di leen xaar pour kii di mun na mun na wàll ci si maanaam public bi ñu fàtte ko. non non non dama dama naan li dama naan sama public man public bi ma am man public bi ma am xol lan ma lan ma lan ma bëggee. voilà léegi xam nga tey fi mu toll nii man sama carrière du ma ko foyee déjà booy ñi ñi ñi ñi fi tudd ñëpp man sama carrière moo gën a métti ci carrière artiste yi fi jaar yëpp dama nekkul koo xam ne du du wax ba pare jamono yi ma yooyu di dal yëpp ah média dafa amut jam ba eh, ndëgg sërëx yiñ ma doon yiñ ma doon lalal jamono yi ma am média amul nit ñi di ko xam man daj naa lu ne ci aar daj naa guddi gu bët setagul ci aar ci ay fakastal ay dem devant tout le monde ñu minimiser ma def nañ ma loo xam ne tey maanaam fi mu toll am na guddi yoo xam ne bu fekkoon ne yàlla jàppale war naa ca mun naa cee xaru léegi nag yooyu day joué ci carrière artiste public gam yaa ngi dégg parce que xam nañ ne kii mënuñu ko téye ci talent man ñu maa ko wax ñëpp di ma dégg parce que dañu xam ne kii ñu ko téye ci talent nan lañ ko mën a téye nañ leen sali nañ leen yàq image am waaye may ma tuuti rek xam nga dèjà moo boobu ku ko wax ku ko yéegal du wàcc barki dem moo njaay bi may tëgg pale pale maa ay ndaanaan yu mag ñoo fa dënd may tëgg pale dama tëgg deux morso pale de la république mooy jour bi Marème fay Sall maa ngi koy saliye bu baax premier dame jour bi ñu tëgg pale pale heureusement li tax may ma ma doon gërëm El Hadj Ndiaye li lii man ku ma defal dama lay gërëm El Hadj Ndiaye keroog dafa wane li fa xew

femmes femmes d'état yi fa nekkoon parce que boobu tous les femmes d'état ak d'Afrique dañ fa nekkoon ak autorités yi ñi ñu gën a mag ci Sénégal sama première apparition ak perki rek déjà bi mu bi mu dawee rek gars yi dañu prêter attention salle changé ma dugg ma dugg sama premier morso mairie naaw xàmmetoo première dame ak gardien ak bon ñëpp bége ndax ay sénégalais léegi animateur bi ñëw Boubacar Diallo moom tamit duma ko maa ngi koy gërëm parce que moom moom tamit euh, liggéey bu rafet lay def non non jabar jamono boobu mu ngi TFM bi mu ñëwee Boubacar Diallo na ma arrête non Pape Ndiaye arrête ma wàcc man tamit boole ma ci wax bi ma wàccee public bi ñoo yuuxu mareem ne nañ delloo buum ca mboy mboy ga waaw waaw ne nañ delloo buum ca mboy mboy ga parce que ñoom xamuñu sax ni affaire bi demee man xamoon naa ne maanaam loolu maanaam ba non ni ma demee woon moom laa la expliqué parce que buñ ne xam ba sax foofu mun loolu moo may dal ci yenn événement parce que damay gis naa damay commencé bi baax géew bi baax am ci ñoo xam ne yaakaar na ne bu ñëwaatee affaire bi maanaam affaire bi ñoom bu ñëwee duñ fa fekk dara dañ naan njaay na wàcc fekk ne est-ce que ñoom ñoom ñoom ñoo ma war a wàcce wala ki ma engagé dama ne dama ne man maa war a wàcc wala non man maa war a wàcc hmm? man maa war a wàcc yow yaa ma war a wàcce wala ki ñu fi indi moo ñu war a wàcce ki moom ah programme bi teg ay fer moom ma war a wàcce waaye yow yow yow sama moromu artiste waroo ñëw ne ni diw na wàcc non loolu du ma ko wax mais xam naa ne ku ñëw ku ku seetaan télé dinga nga di nga dugg Pape Ndiaye coppet pale mhm. euh, waaw waaw yow xam nga bu ma bu ma la toppee yow ku baax nga sama waay nga mais damay damay damay rafetal instant bi mais bu ñu demee ba mu métti bëri na ay mbóot yoo xam ne képp ku ma mas a jaar foo xam ne naqare ma dinaa ko wax ci tele bi. waaw foofu keroog man maa fa nekkoon non tudd tur moom du ma ko def parce que keroog li ma jot a tudd tur expliquer rek parce que dama doon expliquer pour mu clair ñu xam am na ci ñoo xam ne déranger leen te bugguma lool ba damay wax chaque jour pour luy defar nit ñi maanaam delloowaat seen xel. kar Diallo moo fa nekkoon waaw Prince Art seen artiste dafa nekk mais loolu garaawul amul problème mais dama la dama doon jindil Sénégalais yi tuuma boobu ñu may tuumaal parce que damay yéeg ca lool moo ma dal moo ma dal génit génit zénith bi ma yéegee benn morceau lañ ma lañ permettre pour ma jouer ko muy raay joxoñ te public bi ma xaar pare dañu bëri yow ku nekk seet na seetaan na zénith bi ma yéegee prince art ak Pape Diouf ak Matar Diouf Matar Subatel bi ma yéegee xam nga ne public bi xaar nañ ma mais seulement que benn morceau lañ ma jox ah? seulement que benn morceau lañ ma jox mais morceau boobu dañ ko doon dagg dañ ko doon dagg maa bañ. waaw. dama doon déranger. waaw non da nga may laaj loo xam nga doon déranger. li tax ma doon déranger benn. li may li may def am na ci ñoo xam ne ñoom ragal nañ ne bu bu parce xam nañ fi ma mën a yóbbu yëf yi te xam naa ne defe nañ ne doute ne Pape Ndiaye est-ce que bu bu yeggee fi mu war a yegg mën nañ mënees na koo canaliser. waaw be benn loolu da amul ñi ñemewuñu woon parce que wóoluwuñ ne ma nekk naa artiste boo xam ne xaj na bu potentiel yi nga xam ne moom laa am bés bu ñu ko développé ci man ba ma toll niveau bi ma toll est-ce que dinaa leen gestooti te da waaw waaw jalousie te ñoom lenn rek waroon na leen a yee man bagage yi ma yor ba pare nangoo topp seen ginnaaw. mais jeunesse bi ci waa presse ah moo war a artiste xanaa kon. du du ma du ma du ma ne du ma artiste moom du ma leen contrôler sax parce que artiste mënuñu maa tënk parce que ki lay tënk da nga naan ci talent la lay tënk wala dara mais xam naa bu ñu yéegee ci seen man damay def nga def. mais dama ne la tey xam nga tey bu ñu jëlee euh, bu ñu jëlee tey yenn effort yenn effort yi. def ko ci artiste. seen doole def ko ci benn artiste. artiste boobu. mooy ëpp yeneen doole yeneen artistes yi nga xam ne defuñu ci ñoom ci yooyu moyens yooyu maanaam ci côté visibilité jaay la xam nga à Prince Art am nañ doole boo xam ne dañu gis benn artiste boo xam ne sax du dara xamul dara ñu jaay ko ba mu doon le number one xam nga loolu dañ koy gis waxuma laa na ko ñëw ak i mais li li xawoon na ñaaw ñaaw seen njortu mooy est-ce que kii buñ ko fi téye dina am ndigalu dégg ñu luñ bëgg mu def ko dina ko def. d'accord dafa dafa damay wax sama sama public. dafa du li duuf ci nag wi yëpp daf xajul ci cin li mais dinañ amaat yeneen émission mooy gën a éclaircir muy leer bu ñu ko fan wi maye. Hmm. waaw dinañ leen ci mosal. waaw. waaw parce que man li tax ma man man man damaa mën a rafetal dama ne la man yàgg rafetal moo ma yàggal ci Fallou Dieng pour te dire non non xam nga lu ma bàyyi bële daf Fallou ma bàyyi cause la dama dem ba sax boobu musique laa bëgg a tut ma ñëw pour bàyyi musique loolu il faut que muy leer non bi may nekk ci fàllu Dieng falaa génne génnee fa laa bu karaacati waaw waaw parce que boobu boobu bëgg naa bàyyi xam nga ma am nga droit am nga droit man maa doon fubal maa doon fubal ba mu neex ma ah léegi fubalutuma mais entraîneur bi waru laa mere sénégalais yi waru ci lañ laa mere am déet mais bu la neexee nga nga mais teewul seen relation dafay des waaw waaw moo tax man xajuma ci émission yu gàtt yi. Euh, gis nañ keroog nga dal Sodav. Mhm. dal ko mais dëgg ñu bëri am na ñu noo interpellé ne Pape dëgg la wax. Mhm. Mhm. Euh, nga ne Ngoné dafa waaw man contre ma ko. Ngoné man dafa am lu ma gëm mooy yàlla mi ñu sàkk bëggul parparloo sëriñ Touba bi may yaakaar dane boo duggee ca biir boroomam sëñ Moussa Ka danaan du boddee du siis du xej amul xej amul seen maanaam du parparloo maanaam euh, boromam dama ko gëj a sax mais maanaam dem na ba ci am fu wax ne sëñ bi moom daawul parparloo du mbokkam waaw du mbokkam du jàmbur ku ñëw mu yar la teral la xamal la boromam moom noonu lay def léegi nag ñun ñuy ay be ñun ñun xamuñu maanaam ah di parparloo wala dem ci Ngone nduur di ko iñaane wala ñun iñaane nit jóge na ci ñun gisuñu ah li tax mu ne mu jóge SODAV mooy SODAV ñun ab kër la kër kër goo xam ne nday joo xam ne moo fu war a tëdd nday joo xam ne ndey ji seex lay doon ku neutre day neutre yaa ngi dégg koo xam ne sodaaf du affaire prince aar prince aar Ngoné bu dee prince aar Ngoné Ndour mën na ko téye bu dee joololi Ngoné Ndour war ko téye prince aar affaire kii affaire Sénégal la affaire nationale la kooku kiñ fay kiñ fay teg kooku dafay toogal Sénégal la fay toogal ku ñëw mu xool la xam ne kii doomu Sénégal la du xool ne doomu Prince Art la wala doomu Kaolack la wala doomu Ziguinchor wala Pël la wala Joolaa la wala Njaago la day xool ne sénégalais moo taxaw sama kanam day neutre si si bu bu bu neutrul ah du jaar ci yoon mukk ak kuñ ko mënti joxit du jaar ci yoon parce que du équilibré équilibre il faut que mu am. il faut mu am parce que gis nga tey koñ bii nii li chef de quartier bi di war a lijjanti Pape Ndiaye coppet dëgg la ci quartier bi la dëkk waaye këram la war a lijjanti am na loo xam ne këram la yem mais am na loo xam ne chef de quartier bi moo ko war a lijjanti buñ koy jox Pape Ndiaye bu ko séddalee mu mooy ndax li ci des lépp ci këram la yem ak ci xaritam waaye buñ ko joxee xam nga yenn saa dinañ joxe mbir ñu ne jox leen ko imaam lu tax joxuñu ko bilaal wax ñu joxuñu ko kay kay kay kay kay kay bale jàkka ja mais imam lañ koy jox parce que imam buñ ko joxee bilaal dina ca mos koy garde jàkka ja na yow maire bay yalwaan ca buntu jàkka ja sax dina ca mos moo tax sodaaf loolu laa wax ne sodaaf te lool moom loolu sax moo ko arrangé d'accord foofu waaw jàpp naa ci comme li ma la wax rek voilà man sénégalais te di ko woote woo comme ni ma toogee nii ci télé bi osé di wax war na lépp loo xam ne musuwaar bi sax waruma ko sànni sama buntu kër bu da fekk ne un vraiment un voilà lépp luy war ma xool luy déranger ci sama koñ ay xottu biteel ay yenn yu ñàkk fayda yi te ma ne patriote la wala maanaam bu ma waaw bu ma bu ma waxee nit ñi war ma déglu mais dañ naan balaa ngaa balaa ngaa dégle càngaay day fekk nga set loolu dama xam ne war na ma war na képp ku génne morso yéen yéen a ngi yéen la leen war seen kër yéen a ngi koy def yéen ngi sensibilisé bi ngay ñëw def nga li la war parce que bi nga dugg see gis naa nga takk sa masque kon yow def nga li la war kon tey yow boo taxawee jàkkaarloog nit ñi wax te ci Sénégal war nañ la déglu parce que tënku nga ci li ñu wax tënku boobu nag ma xam ne dama cee war a tënku ci laa dox ba tax ma génne morso bi def li nga xam ne moo ma war loolu hmm, xam-xama li gën a bon mooy tàngal nit dugg ci ay bagages non mais moo tax ma ne il faut nga hmm. fanaan oh, si. yëguma ko sax. waaw waaw dinañ xóotal li euh, euh, sama papa de dina faral di wax na ma waaw mais lenn lenn lenn lenn rek comme li ñu wax rek lu duuf ci nag bi dafa xajul ci ci ni li ma li ma góox te war ko wax dafa bëri ak la ma ci xam li ma ci xam te wa dara taxul ma koy wax waaw yeneen affaire li tax ma li tax ma bëgg a wax li non di bëgg naa ko bëgg naa ko bëgg naa ko incha allah dëgg la. xam nga instant instant eh, gis nga instant man am na instant boo xam ne boo ma bëggee def loo grand théâtre nit tey Prince Sarr am na instant boo xam ne buñ ma bëggoon a def loo grand théâtre man Pape Ndiaye damay bañ wala kon dinaa def comme ni yenn artistes def pour ma nangu ko mooy dem ñu jàppale la yaa ngi dégg. saw saw saw meeru koñ wala ñenn yi jàppale la jënd billet yëpp nga ñëw feesal grand théâtre ñu ne diw démb feesal na grand théâtre formule boobu am na xam nga am na grand théâtre boo xam ne du ay billet ñoo ko feesal yoo xam ne ay fan su ko jënd mais comme que artistes yi xam nañ ne ko feesal grand théâtre ñu boo ko boole la ci cour des grands léegi dañ naan semaine bi foofu la gën a gaawee léegi da ngay da dem def sa benn maquette fii nii léegi ci benn studio dem sa koñ ñu jëndal la ay millions ay ticket balaa ngaa ñëw fekk nga saal bi yëpp fees du yow sa talent moo ko génne wala sa sa siiw. waa noo dañuy waxtaan dama lay tegal waaw dañuy dañuy waxtaan dama lay may tuuti pour li xam-xam la pour nga yóbbaale ko lu kenn du la dul wax yow yow li ngay am nii ñu bëri duñ ko am parce que ñu bëri dafa am leen leen tënk ba duñ ñëw taa taataan loolu waaw. voilà voilà Dakar Buzz léegi nag gis nga am na at man loolu gàcce la ci man. parce que man sama talent ak li ma def ci musique bu ma demee ba fi mu toll nii pour ma fay rasal grand théâtre damay fay pour nit ñi ñëw kon jaratu ko te ndax li nga fay loolu loolu ñu la fayee lépp nga nga nga dugg noonu na la leen ne public bi nga to bi nga jàkkaarloon du sa public ñooñu dañ leen a dañ leen di jëndal neexal leen ñu dugg mais yow ñooñu gëmuñu la mais nag ñii seetaan télé dinañ ko xool sa salle bi meublé rafet. ah ñu ne yuu démb fee salle de grand théâtre loolu nga ci bëgg parce que moo lay jox benn niveau bi nga toll fenn ñu ne ah par exemple Wally Seck feesal na ko waaye diw tamit feesal na ko mais comme Wally di jamono bi mu toll jamono bi mu tolloon instant boobu noonu ba feesal grand théâtre war na ko feesal parce que dafa nekk koo xam ne dafa dugg si lu kooku do ay pexe loolu du ay grand théâtre yoo xam ne pexe moo ko feesal waaw loolu phénomène la bu ñëw war a def euh, kiyam mu fees naturel yaa ngi dégg bokkul que artiste boo xam ne tey fi mu toll nii da nga nekk ci benn phase boo xam ne sa toutes tes portes sont verrouillées parce que waruñu la ubbi wuñ la jaayuñu la xam nga artiste bu fi nekk ba am visibilité ba nit ñi di la soow guddeeg bëccëg may ma tuute guddeeg guddeeg bëccëg dañ la jaay ah fii da ngay gis artistes yoo xam ne fi mu toll ñu ngi def buzz lan la jaay ak chaque jour nga gis leen ci média yi ñu ñu leen di sànni di leen dooleel mais artiste boo xam ne defaluñ la loolu nga xëy Michael Jackson sax màggal Touba moo fi ëpp mais bala màggal Touba kenn dootu ko publicité fenn ak tabaski mais màggal Touba buy bu bu buñ koy def balaa moo ñëw di nga gis gars di leen defal publicité di def ay affaire mais artiste boo xam ne defaluñ la loolu ngay jaay sa talent ak sa fit Michael Jackson sax bu ñëwee te amul loolu ah grand théâtre am day sooxe. dégg dégg dégg wa d'accord waaw parce hmm? hmm? waaw lenn mba te ba te man bu ma bu ma doon def grand théâtre comme xeetu parce que man xeet bi gars yi defee nii grand théâtre ñoom ñëpp nag maa maa ngi leen di saluer parce que gis naa ne def nañ def nañ benn kii nu mu tuddati def nañ pas ci musique te bëgg nañoo def mais man li ma rêvé def grand théâtre bés bu ma fa taxawee. ba ma ba ma taxawee spectateur spectateurs yi dañuy gis loo xam ne ah xalaatuñ ne woon mu ngi am Sénégal. dinañ dinañ wax lii est-ce que am ndekete am na Sénégal. waaw waaw xaju ci cin li te ndeysaan xam nga li tax li tax wax métti. waaw waaw ndeysaan ndeysaan xam nga loolu dafa métti. mais ku ci nekk xam na ne dëgg fu muy jógee dafa sori te borom bu koy wax bu fekkee li ngay wax dëgg la fu muy jugee il faut mu métti waxuñu nag pour gaañ kenn waxuñu pour yàq kenn mais am réew surtout Afrique bi ñuy wax nii Afrique li tax mënta dem kanam Afrique laay wax wax ma sax Sénégal dafa tuuti Afrique fekk africain bi nanguwul ñu wax ko dëgg mu nangu ne nekkul ci dëgg mu corriger boppam Afrique. jënd leen Frigidaire yi gën a bees jënd leen oto yi gën a bees yor leen kër yu gën a bees mais da ngeen di nekk en retard Afrique day nekk en retard mentalement parce que li koy waral dangay gis koo xam ne yor ay oh bëgguma lekk seen temps mais la ñu war a débattre daf bëri te neex waaye mais dañu nekk en retard te li ko waral ana lu ngeen bëgg yéen ñi nga ànd ak moom nuñ koy doxalee <laughs> dama ne la. ñu nekk en retard te retard bi yëpp du retardu maanaam matériel parce que oto boo gis États-Unis boo xëyee gis ko fii kër goo gis retard bi ñàkk a nangu dëgg xanaa xam ne dëgg xam nga Europe Europe guy ma tubaab yi xam nga ñu raw ñu xam lu ñu raw ñu dëgg parce que yow tey fi mu toll dëgg ñooñu tey non fi mu toll nii kay Pape yow fi toll nii tabaarkaala parce que xam naa ni damay ragal nga fanaan loolu dëgg boobu damay ma damay ma tuuti parce que euh, euh, euh, dafa xaw dafa dafa xaw a kii nu mu xam nga boo nekkee Sénégal boo tey fi mu toll nii li ñuy def nii dafa am solo wuy ma wuy ma li ngeen li di def nii li yéen yéen ay missionnaire ngeen maa leen ko wax tey ay missionnaire ngeen yéen rôle bi ngeen di joué ci askan wi bu ëllëgee ni ñuy laajee eh, eh, sëriñ si yéen noonu lañ leen di laajee yéen ñii ndax yéen yéenay gindi askan wi da ngeen war taataan loo xam day am njëriñ lu métti métti jël leen ko pour ñi doon nelaw yeewu sinon boo leen ko jëlul dañ yéen seen mission da ngeen ko raté parce que lu tax ngeen raté ko am na ci ñoo xam ne da ngeen waroon a taataan pour ñu éveiller doomu aadama yi mais jëlu leen leen parce que lii ma lay wax nii amul leen lu ko ëpp sens ci émission bi. pour Afrique yeewu xañ na nag tuuti na ci sama jëmm ji man Pape Ndiaye coppe tëkkatub sabar bi feccikat bi taxaw naan Afrique en en retard mais nag dama bëgg ñu dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol dañu nekk en retard am nañ lépp loo am États-Unis am nañ lépp lu lu nekk partout dans le monde mais lu tax nañu dem koñ bii cent boo fi ñëwaatee boo moytuwul nii nga koy fekk parce que li ko war a mën a yóbbu mu bouger dëgg la kenn waru fi sànni xob garab kenn du ko fi sànni ñu xool ne xam ne lii dëgg la kenn waru ko fi sànni dëgg gi njëkkee ci yow. nga ko li xaar ñu ne dëgg du tey couvre-feu bi li tax dóoruñu la ca dóoruma ca damaa tënku ci dëgg. kii mooy président ñoo ko faroon ñoo ko jox suñ carte nee na toog leen seen kër feebar mbas ñëw na ci dëkk bi te ñëpp a war a toog seen kër ñun ñëpp ñu toog suñ kër. kon li may li may li may da li may daggal daggee sama waxtaan rek mooy Afrique dafa manqué dëgg. suñ paan paan dëgg Afrique dafa paan dëgg. <laughs> mais Pape kontaan bu baax baax ma lay remercier. tey ma fekk la sa kër macha allah mm. euh, kontaan parce que gis nañu itam koo ñëw ci këram. gis ko dugg sa kër xam ne macha allah mm. euh, musique bi am na lu mu rek loo xam ne maanaam damay dugg ndeysaan sama kaay la ne pap muus la <laughs> mu ne ah. mu ne mu man bu ma karawul woon ci man man man déggoo li ma la wax. Mm-hmm. man déggoo li ma la wax ñaata at maa ko nekk man number one. Mm-hmm. man man man normalement war naa man man waroon naa am sato man ay samay ay xale yu ndaw yoo xam ne li ma def ci musique def ñu te ñoo ngi am ay ay bato. bato man bato. waaw bato ay sato. ndeysaan ay ay ay musiciens ñu koy am. kon man. man waroon naa am lu ëpp lii. tey tey tey moom tey moom tey vraiment content ci ci ci dalal gi nga ma dalal sa kër ñu bëgg ci lool euh, xam naa ne bu ñu paree itam dañuy dem rek ferlu parce que xam naa ne. ban boisson bi ma lay xam man damaa def affaire parce que boisson balaa ma leen ko jox dama leen ne marloo ba pour mu neex nga ne ngeen ñibbi na oh mais kër Pape Ndiaye naan nañ fa boisson bu neex. <laughs> bàyyi nga tàggatoo ak internet yu Dakar ba su ko defee ñu daal di mën a teg ah maanaam maa ngi leen di nuyu ñëpp. Mm. di leen sant. Mm. te xam ne seen doomu ndey moo toogoon ak yéen te li ma fi def yëpp pour ngeen gën a xam man may kan ba luñ leen waxati ci man ngeen xam ne nit kii kat nit mooy mooy kii ndax nag wax dëgg yàlla loo xam-xam Masamba Masamba gën laa xam boppam te dafay am fu yëfi di toll faaw ku xamul danga koy xamal nit ñi xam loo xam ne lu suulu la ci yow loo xam ne kenn munu munu munu ko wax yow yaa ko xam te weddi di du maanaam euh, euh, euh, nu ko olof njaay waxatee du ragal setal sa der la wet dindiwul tuuma lañ wax mais du ragal setal sa der la dafa am lu bëri gàkk yu ñu ma taqal gàkk yu bëri bari bëri loolu nag dafa laaj nit ñi bala Pape Ndiaye di laalo sàngoo ndeyjooram bi dugg ci biir suuf yu bëri bu ma amee euh, euh, kii opportunité dinaa xamal sénégalais lu bëri loo xam ne dañ ma koy gàkkal te du dëgg ñu xam ko mu leer waaw jërëjëf galas nag maa ngi koy nuyu galas mbaay mbenn sama chauffeur sama xarit moom boobu ba léegi xam ngeen moo leen ak yiir moo ngi nii jàkkaarloo moom xam naa yénn e nag mais chauffeur yi chauffeur yi mm-hmm. am nañ problème parce que mooy centeuru chauffeur yi mu yii mu ngi génn single mu ngi ñëw kooku yéen a koy jël si am kon yow itam dañ lay ngeen pour nga yow Amza Amza de partager cette émission avec vous waaye aussi ce fut daal di waxtaan ak ne moo di Papa Ndiaye parce que wax jéem rek wax na fenn waaye tey gën naa ne gën sama xarit nag. Mm. di baax parce que bi ma ko xamee yàggul waaye dama gis beneen beneen nit ci moom koo xam ne dafa dafa dafa dafa baax koo xam ne dafa ouvert waaye accueillir ñu tey ma kontaan ci loolu attaaya bi na daw. ba ba tey maa ngi gërëm bu baax a baax sama ñaari cadre yooyu kenn ki di Malick l'incontournable borom vraiment ren di gërëm tamit Alioune Badara Sow moom tey moo nekk ci beneen cadre waaye kenn du am sax moom nga xam ne bu ñu ñëwee fii moom moo ñu dawal dawalal merci encore ak ñu ñu dalal ci kër gi Papa Ndiaye kontaan naa kontaan ci internet yu Dakar Buzz waxtaan bi gudd na waaye njëriñ la waaye tamit yéen j'espère bien que di ngeen ci gis njëriñ jaa ngeen jëf le temps que ma sama lawal cái cháu cháu <laughs>